benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru ba bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës lu aju ci wàllum dem beeg dikk bi ci jaww ji tey ji ci guddi bu euh, zéro heure jotee réewum Sénégal euh, dina dakkal maanaam dem beeg dikk bi mu aju ci euh, Europe fu ci mel ne France Italie Espagne Portugal wala Belgique réew yi féete itam ca Afrique du Nord itam mbir mi soxal na leen fu ci mel ne Algérie Égypte. wala Tunisie lu ci mën a am nag dogal yooyu dina am rek lu mu laal ci liggéey ba euh, foofee ca aéroport international Blaise Diagne ki xamle lu ni mel euh, di euh, Xavier Marie di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi kàddu yi mu ngi ko yëkkati démb ci soir d'info beneen ponk mbokk yi muy ba tey des ci xeex Covid 19 wala coronavirus ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllum wér-gu-yaram fekk baax réewum Chine gis ngeen ko noonee vidéo conférence dañu doon amal ngir Euh, séddoog euh, àddina rek euh, seen xam-xam ci xeex lu jëm ci wàllum njàngooro ji réewum Sénégal itam jël na ay matukaayam waaye itam moom Chine sax dina yónnee ndimbal jagleel ko ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Sénégal ak xeex jàngooro ji ca Cap Skirring itam mu mel ni xel daal dalu fa gannaaw itam ba ñu amee benn cas boo xam ne rek dañ doon njoxtu ne da am waaye résultat yi la mu firndeel ci Institut Pasteur moom mooy moom mi fekk fekk baax tugal loolu nag di coronavirus dalu ko waaye lu ci mën a am askan wa rek ñu ngay jël seen matukaay soli gan ba ñu joxe loxo ak yu ni mel xeex euh, coronavirus ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem bekk dikk bi démb itam tase na ak euh, ay ñoñam foofee ca jam ñaajo ngir waxtaanee lu aju ci tegtal yi rawatina dem bekk dikk bi moytu surcharge bi maanaam ëppal gi waaye it fexe rek ba daamar yi ak itam yore contrôle bi ñu gën ibbi seeni gët ba tey ci coronavirus Manu Dibango eh, di nag eh, doomu Cameroun moom it dañu ko testé mu am coronavirus xam ngeen ne eh, saxophoniste saxophoniste la di doomu Cameroun moom nag ay atam ëpp na juróom-ñett fukk ñu ne nag daal ñu joxe xibaar bi di taskatu xibaar ya nekk fële ca Cameroun la ñu wax rek mooy réewum France ba mu doon fajoo ci ab bërëbu fajukaay fa la coronavirus li beneen ponk mbokk yi mu li ci yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taax yi lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlu ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nanu ko junjee Sénégal nag tëj na ay frontière am lu aju ci wàllum jaww ji ci yenn ci réew yi Europe fu ci mel ni euh, France Italie euh, Belgique Portugal ak Espagne naka noonu itam euh, réew ya nekk ca penkub Afrique ñoom it mbir mi laal na leen lu ci mel ni Algérie Tunisie ak Égypte loolu nag dogal la boo xam ne tey ji bu zéro heure jotee ci lañ ko fas yéenee tàmbali loolu daanaka dina tax ba liggéey ba xaw a taxaw uh, foofu ca aéroport ki xamle lu ni mel di Xavier Marie uh, nekk nag directeur général bu Limak AIBD Suma uh, dañu koy teewlu kàddu yi mu ngi ko yëkkati niki démb ci soir d'info les conséquences vont être euh, assez importantes évidemment. mbir mi dina métti trop ci aéroport Blaise Diagne xam ngeen ni li ko tàmbalee tey jii ci ngoon dañuy dakkal roppalaan yi jóge walay dem ca France Italie Espagne Portugal Belgique ak yeneen réew yoo xamante ni kon ñi nga ca Maghreb euh, boo ci boolee Maroc mi nga xamante ni moom. dakkaloon na dem beeg dikk bi euh, loolu nag boo ko xaymaa euh, ci dem ak dikk rek lii ñëw ci ndakaarook dem toll na ci téeméer boo jël juróom-benn fukk ya ak juróom ci ay roppalaan yoo xamante ni kon moom ma yor wàllu trafic boobu li ko tàmbalee kon tey jii ci ngoon bu ndakkalee lu ni mel loolu la ñàkk. Euh, boo ci boolee réew yi nga xamante ni jotoon nañoo commencé wàññi euh, seen dem ak dikk fii ci Sénégal dina dem ba 70 pour cent fii ak semaine bii di jeex ñun nag si suñu wàll dinañ fexe rek ba mbir yi bañ a daanu ñu dem euh, téye entreprise bi loolu nag daañu ci waxtaan ak suñu kilifa rawatina kilifa yi nekk ci nguur ak Sénégal ñu xool rek ne say def ba jël suñu ay matukaay ba. Euh, lu métti métti ñu jéem a rek jafandu aéroport Blaise Diagne comme ni mu koy defee ci aéroport àdduna bi être frappé de euh, ah Marie ci soir d'info la woon euh, Aram Touré ak Mouhamadou Papis Diaw ñoo ko doon dalal ñu des ba tey ci xeex jàngoro ji di Covid 19 ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllum wér-gu-yaram fekk baax réewum Chine amal nañu ab vidéoconférence jaarale ko ci jumtu yu xarala yi euh, janoo nag ak seen nataangoo yi nekk ci yeneen réew fu ci mel ni réewum Sénégal lañu bëgg rek mooy fexe ba séddoo ak askan wi wala boog ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllum yaram euh, naka la ñu def ba xeex jàngoro jooju Chine sax yamul ci loolu ñu ne am na ndimbal moo xam ne ay jumtukaay yum fa fas yéenee baaxee réewum Sénégal ñu koy xaar ci lu yàggul dara Mouhamed Samb Youssou Baro ci ay leeral. bile conférence ñu amal ci jumtukaayu xarale yi amal nañ ko ci ñaar fukk ak ñeenti réewu Afrique mu nekk ab séddoo ci wàllu stratégie ngir mun a xeex. jàngoro bii di coronavirus ci loolu sax am na yenn garab yoo xamante ni si war nañu ko xayma. garab bi nga xam ne mooy faj sibiru boo xam ne ñoom suñu mbokk Chine yi ñu ngi ko doon jëfandikoo te boobu gisoon nañ ni ci yenn euh, analyse yi ñoo def ci laboratoire bi garab boobu am na pexe bu muy def ci ci ci jàngoro bi. mooy chloroquine. léegi euh, te ñoom wane na ñi ñu ngi koy jëfandikoo aussi seen maladie yi am ci ci Chine. moo tax ma ne ñun war nañ ci xalaat ak suñu euh, mbokk docteurs yi nga xam ne ñooy fat maladie lu wóor la kon jamono ji nit ñëpp ñi nga xamante ni si dañoo amee bile feebar diir bi nga xamante ni ci lay feeñ du weesu fukki fan ak ñeent waaye nag am na lu ñuy duppee cas asymptomatique ñooñee faaw ñu saytu leen bu baax a baax. ci wàllu feebar bi dañu gis ni dafa am ñoo xam ne ñi nga xam ne dañu tax ñi feebar. des fois du ñu am benn mandarga seen yaram du ñu am benn du ñu am sëqët du ñu am leen métti te bu ñu defee examen laboratoire dañuy am feebar bi donc ñu ma laajoon leen di ñoom lan mooy seen expérience ci loolu effectivement ñoom wax nañ ni am nañ ci ay cas foofu. li ñuy def rek mooy dañ leen di dañ leen di tëj fenn ba pare di leen defal examen laboratoire ñun loolu la ñuy commencé def. déggoo bi dox ci diggante Sénégal ak réewu Chine bokk na ci mooy yëkkati ay centre d'isolement Sénégal nag jot na nekk ci boobale yoon ak hôpital bi nga xamante ni si moo di mère enfant bu Diamniadio. xam nga Diamniadio dafa amoon hôpital pour wax xale yi donc après ñu yokk ci beneen bâtiment bâtiment boo xam ne léegi dañ ci boole yaay yi donc bâtiment bi pare woon na mais comme inauguré wuñu ko ñu gis ni fi mu nekk nii soxla nañu ay lal bi ñu ko visité gis nañu foofu war na mun a nekk centre boo xam ne mun nañ fa faj ay nit. donc démb ba démb léegi commencé nañ fa def malade donc euh, am nañu fa fukk ak euh, ñeent fukk lal yoo xam ne bu fekkee am na ñoo xam ne am nañ feebar mën nañ leen faj foofu. ay borom xam-xam yu màcc ci wàllu wirgu yaram ñoom nag ñoo amal bile conférence ngir mun a yee ñi nga xamante ni si ñoo di réew Afrique yi ci xeex bi ñeel coronavirus waaye du yem foofu ndax Sénégal ci wàllu boppam dina jot ay garab yu am am solo yuy jóge ci réew Chine loole bokk na ci yenn masque yi écran faciaux waaye itamit yenn jumtukaay ngir mun a saytu feebar bi Mohamed Samb ñu desandi ba tey ak docteur Abdoulaye Bousso mu wax rek ci lu jëm xam ngeen ne euh, jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram démb joxewaat na cas yi nga xam ne ñoom ñoo yokk ci cas euh, yi amoon euh, muy fan ne ni fanweer ak benn ñaar ñi wér mais Abdoulaye Diouf Sarr la ñu nimmeeku rek mooy daanaka waxut ñi am man fanu dëkk ak seeni xeet ak waaso docteur Abdoulaye Bousso la mu gis mooy indiwuñ benn coppite ci joxe xabaar dafa fekk kay ne bugguñu ak boddi benn xeet wala waaso euh, mu ñu teewlu docteur Abdoulaye Bousso ay kàddoom ki ko taataan euh, di Mouhamed Samb ànd ci ak Youssou Barou non li soppeeku rek mooy ci wàllu nit yi fu ñu jugee ak fu ñu dëkk ah, parce que bëgguñu aussi nit yi euh, di jàpp toujours ni dëkk sàngam mooy dugal feebar bi dëkk sàngam mooy dugal feebar bi. parce que war nañ xam ni fi mu nekk nii aussi suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk yooyu aussi ñi ngi ñëw fii ci dëkk bi di dugal feebar bi. donc loolu amul trop solo pour ñun li am solo rek mooy ñu mun leen euh, teel a gis ñu mun leen faj eh, ba nga xam ni feebar bi dina arrêté fii ci Sénégal. Euh, li ñuy wax mooy transparence je pense que ministre de la santé wax na ko aujourd'hui bu ngeen xoolee bés bu nekk ñu def communiqué damay wax ni des fois ñi si di wax ay rumeur am na ay cas amul cas bu ñu mën nëbb feebar bi kenn mënu ko nëbb parce que li mu laaj pour faj ko kenn mënu ko nëbb te loolu moom xalaatuñu ko donc bu ñu doon am sax junni dinañ ko wax. aywa ñu dem ministère de la santé fekki fa Cheikh Diop Cheikh ginnaaw bi ma la nuyoo fii ak ay waxtu yu néew Abdoulaye Diouf Sarr dina jàkkaarloo ak askan wi ñu euh, bàyyi la rek nga wax ñu jamono ji foofu situation bi naka la mel. Cheikh Diop. Cheikh Diop mu mel ni dégg-dégg bi taxu ko neex may fàttali rek ne moom euh, bokk na ci équipe yi télévision Futur Média yóbbu foofu euh, ca buntu ministère de la santé xam ngeen ne bi Covid 19 bi duggee ba tey euh, télévision Futur Média daf leen di baaxe ay xibaar lu aju nag ci mbir moomu ñu xoolaat bu fekkee ni Cheikh Diop jàppandi na ñu dellu fa Cheikh Diop. Euh, Faty maa ngi lay nuyu. waaw mu ngoog euh, ginnaaw bi ñu la fayee itam ñu bàyyi la nga wax ñu jamono ji situation bi na mu mel di fàttali rek ne fii ak ay euh, waxtu yu néew dinañ am en direct ci télévision Futur Média ministre de la santé di Abdoulaye Diouf sax Euh, jërëjëf euh, soxna Faty man itam ma nuyuwaat la nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ni ñu koy defee euh, saa su nekk fi nga xam ne moom moo di ministère de la santé mu mel ni rek saa su nekk ay doomi aadama dañu fiy teew ngir rek daal di jëbal li nga xam ne moom moo di seen i ay loo tey ji nag mu mel ni conseil de ministres bi moom moo waral lekk lu ni mel donc dañ ko dàqandi ba ngoon fekk rek jëriñ ji nga xam ne moom lañ denk wàllu wér yaram daal di fiy teew xew muy Abdoulaye Diouf Sarr sànq itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu ngi ñuy xamal ne rek ne ay conseillers yoo xamante ni ñu nga bàyyeekoo ca mairie bu Yoff teewoon nañ fi ngir rek daal joxe seen ak ndimbal ñaar ci ay marchands ambulants itam def nañ lu ni mel rek ngir daal di joxe seen i ay ndimbal euh, soxna Faty mu mel ni jamono yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi daal nañuy def mbir mi euh, seen i yëfi bopp moo xam ñi féetee ci langue politique bi moo xam ñi féetee euh, ci wàllu tàggat yaram ak bile feebar euh, fi mu toll lépp ñëpp la ba ku nekk ci askan wi war cee euh, mën a dugal sab loxo ñu fàttali rek euh, ni ki démb prélèvement yi nga xam ne institut Pasteur daal na koy def lu tolloo 44 doomi aadama daal nañu leen di defal li nga xam ne moom moo di test bi gannaaw ba ñu ko defee ñent ci ñoom ñoom ñoo daal di am jàngoro ji di coronavirus ñent yi nag ñett dañoo bàyyeekoo ca biti réew kenn ki nag doon jege ñaale njiitu jege ñaale ki nga xam ne rek moom moo di Modou Modou ba bàyyeekoo woon réew bu euh, Italie jàpp leen itam réew bu Sénégal boobaak léegi lu tolloog euh, fanweer ak benn ci ay doomi aadama am nañ fi li nga xam ne rek euh, moom moo di coronavirus mu mel ni ñaar itam daal nañ leen di pàcc ba nga xam ne rek ñibbi nañ seen i ay kër fàttali rek lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu cet gi doon loo xamante ni doomi aadama yi yeewoo fii ci réew bu Sénégal jamono yi war nañ dëppoo ak moom ngir rek ñu daal di xeex lu ni mel mu daal di fi jóge xanaa rek ñaaxaat askan wi jox itam rendez ministère de la santé bu 17h jotee ñu teew fi def li nga xam ne rek euh, moom di euh, le ñu ay mbokku ngir rek a euh, yi xibaar yi fu nekk lay bàyyeekoo ñun nag daal ni ñu li nga xam ne moom moo di suñu ay programme ngir rek jébbal askan wi loo xamante ni rek daas ko mën dégg ma bàyyi la nga wéyal li nga xam ne moom moo di xibaar yi ñu jox rendez-vous incha allahu rabbi bu 17h jotee fii ci ministère de la santé ñu jukkil leen doomi doomi aadama yi nga xam ne jot nañu def ay test foofee nga xam ne moom moo di ca institut Pasteur te ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr wala directeur bu cabinet di docteur Aloyse Waly Diouf di digtal askan wi mu ngoog euh, Cheikh Diop euh, ñu jox la dig daje fii ak lu manqué ñeenti waxtu ngi jàkkaarloo ak euh, askan wi ci ba tey xeex Covid 19 googu ñu wéyal biir xabaaru diggu bëccëg gi mbokk yi mu mel ne ay bërëbu liggéeyukaay yu bari itam jël nañu seeni jumtukaay ay satu pay dem na seeti ñenn ci ñoom ñu teewlu lam fa jëlee mi ngi ci àndoon ak ku ñu naan Pape Sangone Mbaye. buntu mën na ko ibbi comme sénégal yu bëri dama ragal coronavirus bi balaa may dugg ma raxas sama ay loxo ak alcogel bi nga xamante ne def nañu ko ci bunt bi maa ngi sax ibbi bunt bi ak sama tànk benn yoon ci biir ma laajte gérant bi waaye ñu ne ma dafa occupé ma delluwaat ginnaaw di dem xool yi beneen pâtisserie boo xamante ne sénégalais yi bëgg nañ ko loolu fii ci almadi yi ndax nag ay viennoiserie yu neex waaye nag ñëpp xam nañ ne ci waxtu wi ñu nekk ñëpp a stressé waaye bàyyiwu ma ma duggaat nag ci beneen pâtisserie ñu ne ma ñett duñu wax ak man ñu joxaat ma beneen adresse mail maa ko ñàkk chance waaye li ma gis nag mooy ne def nañu benn barrière de sécurité ak benn cordon bu rouge ngir rek fi nga xamante ne moom la client bi war a xaar balaa ñu koy servir ci bunt bi ñu def ci benn bidon wu alcogel faw nag nga raxas say loxo balaa nag ñu lay jox si neex yi ñuy jaay waaye lenn leer na ma propriétaires yi jël nañu nag seen ay matuwaay ngi rek aar caronge ñi nga xamante ne ñooy ñëw di fi jënd hôtel yi nag ñoom naka lañu taxawee fii ci rond point de Ngor ma duggaat ci biir waaye ba tey xam naa naam li may xaar waaye duma bàyyi ma gis benn gérant bu ñuy wax Hassan moom it nee na du wax ndaxte chargé de communication bi nekk fi sama man am xelu jël ay image waaye moom itam amul chance ndaxte image yi dafa ñuul kukk hôtel bi kenn nekku fi gérant Hassan mi ngi continuer di doxal li nga xamante ne moo di business en attendant que coronavirus bi wan ñu ginnaaw ñu des ba tey ci mbiram xeex euh, jàngoro ji di coronavirus fële ca Cap Skirring moom euh, gannaaw rek ba nu indee ay résultats kenn koo xam ne daal euh, danoo jàppoon wala boog njoxtu da ca ñaawoon lu ci mën a am résultat yi la mu fësal moom mooy dundul ak jàngoro ji terewul nag askan wa ba tey rek ña ngay ànd ak njàqare gën a jël seeni matukaay dem nañ sax bay sol ay ay gants ak yu ni mel Boubacar Diassi ak Lamine Mandian la ñuy fekk ci bët Saalumu Sénégal annonce bi ñu annoncé ab cas suspect bu coronavirus ci genn ci hôtel yu nekk ci Cap Skirring jur na njaxare ju mag ci askan bu yeewu ci capital touristique bu Casamance wërngal këpp. ah feebu corona bi dañuy ragal de dañuy ragal trop fu ñu nekk nii ñu ngi ñaan yàlla mu jàppale ñu mu jàppale ñu bu baax a baax a baax. Ah, coronavirus bi depuis buñ ko déggee ba léegi. waaw problème bi mooy ñun fii benn voie la benn yoon la donc bu fi dugsee rek mooy ñun am nañu problème. problème bu rëy rëy. bu ñu yegsee si biir librairie yi ñu seetlu nii ñu fay liggéey dañu sax sol ay gants ngir fagaru. waaw tiit moom tiit nañ dëkk bi yëpp a tiit bon gants yi bu ma ko solee. day day aar day aar ci microbe yeeg yooyu parce que dañu ne euh, euh, virus bi mu ngi fépp bunt yi ak machine yi damay liggéey ak machine yooyu yëpp dañ ne ñu moytu ko. soxna sii di jaay ay objet d'art ci hôtel bu ñu njort ne am na coronavirus. waaye incident bi fekk na moom mu génn ba noppi. waa dañuy jaay paréo jaay ay mbuba am nañu ay xarit tubaab am pagay ñun loolu mooy suñu liggéey waaw mais buñ mais bu ñu dëggee feebar bi dañuy ragal parce que da ngay am sa xarit tubaab day ñëw rek mu lang la ngeen di waxtaan ak moom nga koy jaay say bagage waaw ragal nañu torom nag ce gi contexte la mairie bu Diembéring jël ndogal ni bokk ci opération daan coronavirus bi nga xamante ni Sénégal moo ko taxawal. commune de Diembéring dafa euh, donc euh, d'accord ni euh, puisque dafa bokk ci benn zone boo xamante ni dafa accessible donc à l'étranger parce que zone la boo xamante dafa vulnérable am nañu benn aéroport boo xamante ni bi daf ñuy jox directement contact ak l'extérieur bon exemple ci ñun la war a jóge premier exemple bi ci ñun la war a jógee moo tax ñu mobiliser xaalis boobu dañu mobiliser cinq millions jox ko médecin chef mu def donc euh, ay euh, commande tey jii ñu leen di jox de façon symbolique les postes de santé les imams euh, et les ak yeneen donc structures yi nga xamante ni yëpp ay structures d'affluence la maanaam mbooloo bu bari dafa donc dañ dañ fay dem. ci waxtu woowu sous-préfet bu Kabrousse taxaw temm ngir lépp liñ dogal bu chef de l'État jël. mi daal di ko amal ni mu ko neexee. vraiment on va aussi vers les bars pour leur demander vraiment de de vider les bars. suñu liggéey tey mooy dem ci baar yi ne ci baar yi ne leen bu fekkee ñëw nañu foofu mën nañ ci dem waaye pas d' ñaar touristes yi bàyyi ko France ak Belgique daanaka ñoom dañuy dellu seeni réew. Bah, en fait, on était prévu à rester jusqu'à dimanche, mais en fait, on rentre. Bah, on a reçu un message en fin de compte en disant qu'on avait un vol euh, sanitaire. J'avais l'intention de rentrer pour euh, une semaine en Belgique pour euh, raisons privées, mais étant donné que l'aéroport de Dakar serait fermé à partir de mercredi soir, mon vol serait alors annulé. ñu jàpp ne nguur gi mu nga bàyyi xel bu baax Cap Skirring waaye it lépp lu site touristique bu nekk ci suñum réew mu ngoog Cheikh euh, Boubacar Dias yi ñu dem nag ca Pambal nekk ca département bu Tivaouane foofee la ñu gis mooy moodu moodu yi am na ñuy tàmbalee di euh, ñibbisiwaat ba tax na itam ñu yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram euh, ne fa tey ñu ngay wéy di ñaax askan wi dem nañ sax ba jël ay nit ñuy wër ci gox yeex gox goxaan yi di waxtaan ak askan wi boole kook di leen may jumtukaay yuy tax ñu gën a mucc muccal seenu njaboot ci jàngoro ji di Covid 19 ca Pambal dañu fay fekki Cheikh Anta Diop mu ànd ak di ab commune nekk ci département bu Tivaouane dëkk bii de daanaka bari nay immigré am na sax ñoo xamante ni jóge nañ Italie Espagne ñëw fii ci Pambal waaye nag ci jamono yi ki nga xamante ne moom mooy infirmier chef de poste santé bu Pambal nee ne amaguñu benn cas suspect. maire yi Pambal jël nañu ay matuwaay yi nga xamante ne dina ci jox askan wi produit yi nga xamante ne dinañu leen jàppale si prévention bi képp ku nga xamante ñaaw nañ ci mu jóge ci réew yi nga xamante ne am nañ feebar bi wala mu nga xamante ne jege naa ku nga xamante am na feebar bi ñu jàppale ñu ci ñu teel a yëgal ko pour ñu mën a jël suñu matuwaay. ñuy liggéey fii ci poste de santé bu Pambal ak kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk dëkk bi ñoom ñëpp taxaw nañu ngir jàngoro ji bañ dugg seen dëkk maire dëkk bi sax jël na ay jumtukaay yu am solo jébbal ko infirmier chef de post bi ngir ñu mën cee aaru door nañu sax ay campagne dugg nag ci dëkk dëkkaan yi wër commune Pambal ngir gën a ñax askan wi ngir ñu moytu bu baax feebar bi. dina am ay dëkk yu bari ñu dem lu mel ni Duuñaan Mbasiyaan Kaadaan ak xak ngir wax ak nit ñi tournée bi nag nekkul dañuy dajale nit ñi ci bayal yi déedéet dañu jëm dañu jël ay matukaay yoo xam ne dañ communiquer ak nit ñi ci seen biir kër ngir lan jox leen li leen war a jox ngir jàppale leen ci waaye aussi xamal na leen xamal leen nan la ñu war a def ba aar feebar bi bu mu lor askan wi. ñun def fii ci Pambal lépp loo xam dafa jëm ci ay ngénte ay ceet ay ay jàng ak ay gàmmu lépp annulé nañ ko ba nga te dinañ fexe ak service d'ordre yi fi nekk ngir ñuy def ay patrouille ci biir dëkk yi. Cheikh Mbacke Jonn di ñaax ay naataangoom te ñuy jiite boppu moomeel yi ñu taxaw temm jàppale nguur gi ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko ngir xeex jàngoroy coronavirus. Cheikh Anta Diop ca ndax géej itam njàqare am na ci ñenn ci askan wi wana lan moo tax ñu yëkkati yi les kàddu ne ñu ndar euh, dëkk la boo xam ne dafa seq frontière ak yeneeni réew yu nekk fii ci euh, Afrique waaye lañu gis rek moom mooy euh, ñenn ci mudu mudu itam yoonu suuf bi la ñuy jaar dugg foofu jaxasoo ak askan wi loolu la bëgg loola bokk loolu moo tey seenam xel dañ ci ànd ak seeni Diop ak Habib Seck. jamono ji ak feebaru coronavirus bi ñi nga xamante ni dañu doon dund ca tugal dëkk ci ndar ñenn ci ñoom ñibbisi nañ ñii jaar ci kaw wala boog ñu jaar ci suuf li tiital askanu ndar mooy ñi jaar ci suuf di contrôle ba nga xamante ni waroon nañu leen ko contrôler amul loolee moo waral doomu ndar yi di ñaan ñu bàyyi xel ci ñoom ngir feebaru coronavirus bi lee kenn du ko mën a tasaare ci dëkk bi kuy jaar aussi yoonu suuf vraiment par rapport ak situation bi nañ ñu jàppale parce que suñuy mbokk lañ ñun lañ demoon jàppale ji wuti pour jox ñu mais aussi quand même euh, def naa jox bi ñu doon jox mooy li nga xamte te ne mooy gën si ñun jàppale ñu suñuy biir kër jàppale ñu suñu koom-koom mais pas aussi indi li nga xam te ne peut-être mën na suuxal suñu réew forcé ba dem ba ñëw nga dem hôpital sinon la sa bopp gars yi xool la saytu sa yaram li ci war lépp xam nga xam yow dangay doogaa ñëw boo àggee ñu saytu ko ndax parce que nekkul loo xam lu am danger la nekkul loo xam da looy fay la mais looy dem la ñu jël sa say matukaay gars yi jël ko defar ko mu baax nga dem ndax ñoom loolu doomu la ñu bëgg ñoom loolu sax moo gënal baa bu fekkee moom moo ñëw boo wootee sax gars yi jël la ñoom doomu ndar yi ñu ngay ñaan lii kilifa yi bàyyi ci xel bu baax di liggéey dëkk bi ni mu mettee nii nga feebar am fa nga ñëw jaar ci géej gi indaale sa feebar di ko nëbb wàll ko ñoo ko war a wàll kooku jaade problème quoi. ci région médicale nag amal nañ fa ndaje ndaje bi tax na médecin chef bu région bu Saint-Louis yëy ci yàb bi ñu xam ne am na ñu bëri ñuy jaaree Rosso wala Jama wala feneen jóge Italie joge Espagne joge feneen ñu ne nag ah, su fekkente ne mbir bi ñun dañ ko bëgg a foofu il faut ñu dem di fa taxaw di am lu ñu fay def su ñëwee tamit te euh, gisuñu dara xaymawuñu dara dañu am liste boo xam ne nationale dañ koy bind joxe ko fi muy dem ñooñu. Euh, su ñëwee dinañ dem seeti ko euh, xool ko euh, gëstu ko ba keroog diir bi nga xam ne bi moom la ñu teg muy fukki fan ak ñeent yi jàll ñu door a wax ko ne suñu xel dal na. ndar géej nag ay fan a ngi ni lee ñu ci bare dañu tiit ndaxte la ko waral bokk na ci seeni doom yi nga xamante ni dañu demoon ci Espagne wala Italie ñenn ci ñoom ñu ngi ci dëkk bi jamono jile te ñu ci bare saytu ba leen waroon saytu ci wàllu coronavirus bi amul. Ousseynou Diop ñu sant la gërëm la dem ci diwaanu Saalum foofee ay taskatu xibaar rek la ñuy tàggat ngir ñu xool naka la ñuy def ba joxee eh, xibaar yi aju ci coronavirus loolu nag li tax ñu jël bi le dogal gis ngeen kook waaye réew mi foofa itam ca Saalum eh, ñetti cas yoo xam ne xel da caa yoon moo ne résultat yi la mu wane eh, mooy ñoom ñëpp amuñu jàngoro ji waaye ñoom noo bëgg rek ba taskatu xibaar yi di mën a jox askan wi xibaar yu wér te dëggu euh, aju ci coronavirus ca saalum dañu fay fekk Ibrahima Jàmme mu bokkoon ci taskatu xibaar yi fekke woon boobi leen ndaje ay taskatu xibaar ak ay animateur rajo privé yi toog nag di yokk seen xam-xam ci feebar bi li lëmbee àdduna di coronavirus li ko dale ci virus bi ci boppam nan la bindoo ba ci wàllante bi jaarale ko ci différents cas yi muy cas contact cas suspect ak cas confirmé loolu yëpp waaye région médicale gën nañ ko faram-fàcceel ñi di taskatu xibaar yi. surtout rajo communautaire yi ci biir région de Kaolack waxtaan ak ñoom wax wan leen. Euh, lan mooy feebar bi nga xamante ne mooy euh, feebaru coronavirus wax leen nan lay dalee nit nan la ciy nit di aaro wax leen yépp daal li nga xamante ne information yépp yi nga xam ne war nañ ko am xam nan lañuy mën a Euh, sensibiliser population bi. bi ñu génnee nag ci atelier bi de ñu bëri ci taskatu xibaar yi yokk nañu xam-xam gën a ubbeeku ci wàllum tasum xibaar jëmale ko ci coronavirus. formation bi tey am na solo te ñëw na ci waxtam naam fekk nañu ci liggéey bi xëy na bu njëkk ba dañu doon wax nii rek euh, sans pour autant nga dugg ci yeneen yi mais tey li ñu fi gis tey ak li ñu jox dina mun a tax aussi bu ñuy waxee ci askan wi dinañu wax wax ju leer te wër loo xamante ne ci waa kër docteur lañ ko tibbee aussi mun leen ko jox séddoo ak ñoom kàllaama aussi jàpp nañu aussi ci communauté bi seen kàllaama bu foo mënta nekk aussi nekk na ci rajo bi. depuis bu ñu tàmbalee di wax feebar bi le nag amagul benn cas confirmé fii ci diwaanu Kaolack lu dul ay cas suspect. jotoon nañ fi am nag ñetti cas suspect yoo xam ne prélevé woon lañ leen yóbbu prélèvement yi institut Pasteur mais dafa négatif la. teewul waa région médicale nag nee nañ du ñu wàcce seen i loxo di woo askan wi kon ñu gën a farlu ci mesure d'hygiène yi bu ko defee a bi le Ibrahima Diame ñu des ba tey ca Saalum foofe frontière bi nu seq ak bi nag nee ñu jël nañ bépp matukaay ngir xeex jàngoro jii di coronavirus lépp itam lu aju ci wàllum wérgu yaram ñi cay liggéey ña ngi am taxawaay bu mucc ayib du suñuy kàddu ñoom ñoo ko xamle ci noonu dañuy teew lu ay Aïssatou Bari Diouf nekk médecin chef foofe ca Kaolack kàddu yi Ibrahima Diame la ba tey ak Fally Gueye euh, région de am nañ frontière fee nga xamante ne mooy Kër Ayib déjà ci ci ci biir mois de février rek ñun jotoon nañ fa dem waxtaan ak euh, force de défense et de sécurité yi fa nekk ma ci profito vraiment di di di gërëm commissaire bi nga xamante ne moo fa nekk mais également di gërëm élément Croix-Rouge bi ñu waxtaanee jot nañ fa teg benn dispositif boo xam ne képp kuy dugg si si biir euh, ci biir réew mi dinga raxas sa loxo boo raxasee sa loxo ba pare dinañ la defal thermoflash xool ndax yaram bi tàng na wala déet pour jéem a xool ndax am nga aussi mandarga feebar bi wala déet bu leelu weesee itam teg nañ fa benn tànt boo xamante ne dañu ne rek nañu fagaru au cas où kenn dugg ñu gis mandarga lu mel ni yaram bu tàng wala beneen màndarga feebar bi ñu mën la teg foofu le temps que ñuy def le nécessaire euh, bu loolu weesoo ci district sanitaire yépp identifié nañ fa ay salle tegal leen li ñuy tuddee EPI ak ay termoflage ba nga xamante ne dinañu dinañu mën a jël en charge cas suspect yi nga xamante ne ñaanuñu yàlla sax mais xam nga booy surveiller moom léeg-léeg nga am cas suspect euh, dinañ xam nan lañ nan la ñuy def ak moom. Euh, hôpital régional tamit service des maladies infectieuses fi nekk nii dañ ko teg rek rien que pour feebar bi parce que fagaru moo gën xaar ba mu taxaw nga commencé naan nan laay def. aywa ñu des ba tey xeex jàngoro ji di coronavirus ak jëwriñ bi ñu denk wàllum dem beeg dikk bi euh, tase na ca jam ñaajo ak liggéeykat yi nekk ci woowile wàll moom Omar Youm mais am na ay tegtal yu nu joxe waaye itam ak ki digal yoo xam ne bëgg nañu rek ñu yëngatu ci wàllum dem beeg dikk bi fii ci réew mi euh, gën a sàmmonte ak moom ñu teewlu Omar Youm jëwriñ bi ñu denk wàllu dem ak dikk kàddu yi euh, ki ko taataan di ko ñu toogal te ngi cak li ko wax di Ousseynou Thiam ànd ceeg Ahmadou Bamba Sow yooyu yu am solo la d' abord yi nga xam ne ci opérateurs yi la jëm bi ci gën a am solo mooy defe naa ñu redouble de vigilance ci mbiru cet gi cet gi ci gaaru ceer yi cet gi ci biir oto yi di raxas oto yi mais cet gi aussi ci li nga xam ne ci place yi nga xam ne foofu la ñuy toog beneen bi mooy ñuy sàmmonte ak li nga xam ne code de la route prévoir na ko mooy ñu éviter li ñuy tuddee sur nombre de passagers maanaam tey dañuy tere contact yi xam nañ ne maladie bi ci contact ak rapprochement lay gaaw pour jàll donc loolu nag dañ ko war a tere rawatina ci condition yi nga xam ne ak contexte bi nga xam ne ci la ñu nekk te ñu ngi demander passagers yi ñi nga xam ne demuñu pour liggéey wala ñuy dox solo bu am yitte nañu toog seen kër bañ a jël transport public parce que dañuy indi aussi ay problème donc nañu éviter yooyu nga xam ne ay déplacement yu inutile la ci contexte bi ñu nekk mais aussi transporteurs yi ak chauffeurs yi ñu respecté li nga xam ne moom mooy surnombre respecté cet gi def nag ci gare frontalière yi loolu nga xam ne manifeste la maanaam ku ñuy yëpp ci oto war nañu xam sa tur xam fi nga dëkk xam sa numéro téléphone loolu li tax parce que ministère de la gis ngeen ay recoupement à chaque fois dafa am dañuy dañuy circonscrire bi jëwriñ bi ñu denk wàllu miin ak géologie itam àdduna ci mbir mi moom Sophie Gladima Siby la mu xam ne rek mooy euh, danañu tëj nag bërëb yi nga xam ne fa la ñuy seetee saytu ak càmbar euh, lu jëm ci wàllum wurus waaye itam dina leen jàppale ci wàllum koom ba du ñu mën a yëg daanaka daal euh, jafe-jafe yooyu gàllu ci mbirum Covid 19 dañuy teewlu Sophie Gladima bi kàddu yi ak Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. tey fanaane ñëpp xam nañ li xew ci àddina bi muy problème mu virus bi ñu naan Covid 19 ki nga xam ne xamul góor am jigéen xamul jullit am ñàkk jullit ñëpp la jàpp di buum bàyyiwul nit ñi mais tamit bàyyiwul fi nga xam ne moom lañuy liggéey ndaxte nit ku warul mënoo dem liggéey tey Sénégal président de la République bi ñu toogee ba ay diir jël na. ay matuwaay bi mu defee conseil présidentiel bi samedi bi passé bi mu convoqué en urgence palais bi ba ñu gisee loolu itam ñun tamit ñu ne jot na si suñu secteur pour jàppale ko ñu woo ñi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal nga xam ne ñooy yore société minière ñoom seen biir société yi am nañu ay euh, jumtukaay boo xam ne ñooy leen dimbale ñi nga xam ne ñooy liggéey ak ñoom ba suñu feebaree ak yooyu balaa sax ñuy ñëw Dakar ñoom si biir société yi dañ leen di aar yokk nañu kaaraange boobu foofu mais tamit dañuy jàppale ña dëkk seen wet si kaaraange boobu ñoom yokk nañ ko mais bañ su jógee tamit yaakaar nañu ñun war nañu wax ak gouverneur te yónnee nañ leen bataaxal pour ne leen lépp luy liggéey ba nga xam ne gaskatu wurus bi lañ doon def foofu ndaxte itamit foofu dafa bari ñu fay nekk kenn xamul te ñoom itam souvent du ñu am information yi à temps gouverneur yi arrêté activité yooyu ndaxte si ngelaw lay jaar te ñoom poussière la ñuy yëkkati société yi tamit d'accord nañu pour gunge leen pour def fi sensibilisation parce que soxla nañu ñu waxal def leen sensibilisation surtout nag si kaalama nga xam ne moom la ñuy euh, waxtaanee seen biir foofu ndaxte ñu si bari du ñu ay sénégalais. donc euh, sensibilisation boobu ñoom dinañ ko def pour jël seen mëtuwaay pour aar leen donc euh, fu mu nekk nii donc bind naa gouverneur yi pour ne leen ñu arrêté activité orpaillage mais itam société yi avant ñuy waxtaan ak ñoom itamit jëloon nañu ay mesure mooy di bàyyi woon nañu ña nga xam ne ñoo waroon jógee bitim réew war a dugg si may nañ leen congé ba du ñu ñëw ba pendant une quarantaine de jours ñu wéy ba tey ak coronavirus bi ak di euh, Dibango moom nag saxophoniste euh, saxophoniste la nekk itam euh, doomu Cameroun moom dafa am jàngoro ji di coronavirus ginnaaw résultat yi la mu firnde rek mooy daal dafay dund ak jàngoro ji moom nag xam ngeen ko dañ ko yóbbu woon fële ca France wala bokk ca France fala entré woon hôpital juróom-benn fan ci weeru mars bi nu génn la ñu gis rek ne beneen jàngoro fa yóbbu waaye ci boobu bërëbu fajukaay la ñu ne fa la jëlee boobile euh, coronavirus wala Covid 19 lu ci mën a xibaar bi ñi ko joxe rek di euh, suñu naataango euh, ya nekk fële ci réewam di Cameroun moom nag di bàngooy atam ëpp na juróom-ñett fukk keneen itam kuy dund ak jàngooro ji di Kevin Durant moom nag xam ngeen ko ne doomu Amérique la di yëngatu ci wàllum basketball moom it résultat yi la mu firnde rek mooy test test bi euh, dafa positif ñu ñëw euh, ci ponk bu mujj bi li ci yenn kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jaaxle l'observateur nañu ci foofee fa la gouvernement bu Sénégal toll ndax waa ministère de la santé démb bu ñuy wax ci cas coronavirus yu bees yi am ci réew mi nañu ca waxe musuñoo waxee noone bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi démb dañu ne rek am na ci réew mi yeneen ñeenti cas yu yees kenn ki moodu moodu ba woon ci Touba moo ko ko wàll yeneen ñett yi ci des bitim réew la ñu jugee journal bi nañu fa la ñu yem ca wax ja waxuñu fan la ñu ci bitim réew waxuñu la ko baaxoo matu ko woon ndax mën naa jur xel mu yar yari ci nit ñi baa mu dem sax ba jurug mooy tonte la si ne kay nañu li ñu war a moytu dëgg moo di coronavirus bi ndax mi ngi gën di law ci réew mi yeneen ñeenti cas yu yees feeñ ci Sénégal mu yóbbu limub ñi amee coronavirus ci réew mi ci fanweeri cas ak benn soleil national nañu testé nañu démb ñeent fukki nit ak ñeent nit la ñu gis ne amee na ko ca suur soine ko ca ñeenti cas ñett yee bitim réew ñu jugee les ko gis ne coronavirus bi mi ngi gën di law ci réew mi ñeenti cas yu bees am nañu fi journal bi tegal ñu ci ne kilifa yu réewum Sénégal ñoo ngi seeti pexe ngir test yi ñuy def gën gaaw li ñu bëgg mooy def ba nga xam ne bu ñu defa teb test gën ko yàgg ci fukki minutes dinañu jot résultat ya docteur Mamadou Mansour Diouf dib anesthésiste réanimateur ca polyclinique ba ca France di ñaawlu ci l'observateur li tax ba test bu ñuy def ci coronavirus bi rek yóbbul ko waa institut Pasteur te mu am ci réew mi yeneen i laboratoire yu ko mën a def moom docteur Diouf l'observateur nee nañu gis na ne xaalis bi ñuy dug ci test yi ñuy def waxuñu ca lu leer li leer ba leer journal Le Témoin nañu moo bees bu war a am ci réew mi Le Quotidien ne ko marché bu jawbeet kilifa yi jël nañu dogalu tëj ko démb lañu ko tëj Grand Place jàpp ne matuwaay yu ñu jël rek ngir xeex coronavirus bi wares na cee bàyyi xel bu baax a baax Cap Skirring journal bi dem ci bay laaj ndax Cap du diiwaan bu jàngoro bi buruxlu ngir mën a dugg ci réew mi ne seetlu nañu ne semaine bu nekk lu jege ñetti téeméeri touriste danañu jaare Cap Skirring dugg ci réew mi réew meek destination Sénégal bi ñu ne woon dañu koy jaay su ne nañu njaay maa ngay bëgg a lamb ne suspendre nañu liaison aérien yi bateau Aline Sitoé Diatta bu Agen ñu gaare leen agence de voyage yi ci réew mi ñu ca bari bu ñu tëjul it seeni borom liggéeyuñu sud nañu bañ na ko ba ñuy yëngu ci wàllu tourisme ñoo ngi sàkku ak ndimbal ak njàppandal ci gouvernement bi jëmee ci ñoom libération nañu àdduna bi yépp ñoo jaxasoo gudd yi ñu toll ne bi coronavirus bi feeñee ak léegi ci weeru décembre nee nañu faat na ci àdduna bi lu toll ci juróom-ñaari junni nit ak juróom-ñaar ca Italie faat na fa ñaari junni doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñett ca Espagne mu faat fa juróomi doomi aadama ak juróom-ñeent ca France téeméeri doomi aadama ak juróom-ñaar fukk ak juróom faatu nañu fa ndax coronavirus bi ñaar faatu nañu ca Maroc Sénégal it mi ngi ci fanweeri kaa ak benn ndax la Tribune xamal nañu ne moom la dëndub Afrique bi di ñàkk ci secteur pétrole bi ndax coronavirus bi suur soit nañu ñu ñuy ay milliardaires ci réew mi nañu génn génnee ci li yor jàppale ko état bi ci xeex bi muy xeex ak Covid 19 bi ndax xel mënuta nangu ñu nekk ci réew mi di gagné ay marché ci réew mi lu ne mel am ci réew mi ñu mel ne dëkkul ci réew mi njiit réew mi Macky Sall suur soit nañu bëgg sëmoon entrepreneur yi ci wàllu BTP bi lu mu bon bon dina jële ci ñoom ay milliards yu bari Les Échos nañu bari nañu tàmbale joxe seenub xaalis ngir jàpp ci xeex bi ville de Dakar joxe na téeméeri million soxna Aïda Diallo joxe fukki million ak juróom waa SAES e joxe nañu juróomi million Grand Place nañu ministre Omar Gueye joxe na ñaar fukki million ak juróom source waa nañu ñi jëlagum daana ci joxe gi ñoo di député yu jigéen ci juróom-ñaar fukki député ak benn lañu maanaam 71 député yu jigéen lañu joxe ñoom ñëpp boo ko boolee mi ngi toll ci ñaari million yéen boo ko calculé li fay am mooy député bu jigéen bu ci nekk vingt-huit mille la joxe. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi desandi leen ak programme yu télévision Futurs média di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen.